gars yi insécurisme vraiment nekk na loo xam ni facteur la boo xam ne day tere dëkk dem tey ngeen seetaan lii ngeen gis ni ba xam lii normal na wala normalul conteneur bi wàccee à vingt heures ci digg tali bi ça se passe à Guédiawaye Euh, au ravin juste ci tournant Tay tey ngeen foog ni juste na tay auto yi rang yëpp embouteillage bi mu créé maanaam munoo munoo qualifier tay ñaaway bi li ñaaw ci ci ci bi Sénégal li rek mun na tax dëkk bi du dem lii aussi ñuy décrier manque de vigilance bu état bi am ci par rapport à ça donc war na am tay police de proximité bi nga xamné tay day saytu quartier yi koñ yi tali yi lépp lu fa du normal wala insigne tay sax da nga gis ay ci non loin de foofu sax da ngay gis tey ay ay ay moto yu nekk ci tournal bi nekk installé ko comme comme comme atelier mécanicien donc tey nga gis kii li mu def nii vraiment mu nekk na lu ñaaw a ñaaw a ñaaw loo xam ni ñu ngi ciy interpellé état bi déjà ñu bu dul dara dinañ ci dox suñu wàllu bopp personne yaa ngi gis kii di kaas donc war nañ taxaw seetlu Sénégal ñëpp ku ne jàppee tali sa kër papa wala sa talibaay foog loolu cesse il faut que ça cesse. rain, some kind of butterfly.